Wally Seck laa koy may di ko tuddee ras gis kii moo yëngal xale yi kii moo lëmbee jamono fi mu ne nii bagage yaa ngi nii commande yi gis nga gantiir yi yëpp dama ko def commande waaw xam naa ni balaa le 22 incha allah lépp war naa mat lépp gaa yaa ngi ñëwlu gaa yaa ngi bagage yaa ngi nii gis nga koy trois pièces desner nee na moom moo war a tëj géew bi mu ngi noonu bagage daal la ngi nii macha allah ñu ngi encouragé booy bi di ko wax fi mu jàpp baax na te tamit ñun li suñu fierté la quoi boo leen defee déplacer, bu toll déplacement bu toll nii xam nga jógee dëkk ak dëkk ñëw gis jeune tailleur surtout ñu mel ni ñun day gën a fësal suñu liggéey quoi te affaire bi bon initiative bu nice la quoi surtout yow tamit ñu la ciy remercier. Madame, on vous trouvé dans un boutique. Euh, on voudrait savoir euh, qu'est-ce que tu fais ici. Alors, je suis venue chercher mes habits chez le tailleur et j'en ai profité à l'occasion pour préparer la soirée du 22 à Paris avec Wally Seck. waaw gis nga affaire bi rafet na neex na ba paré ala daw be na léegi ñun jeune tailleur yépp ñu ngi koy waaj Gaay yi ñu ngi koy waaj tak nañ bagage yi fi mu toll nii daal def finition yee des yenn ñëw yi xale yi dem nañ salon ñu ngi defaroo communauté sénégalaise bi nekk fi yépp seen ñëw paré na fi tolli dal ay réglage yeeg des ñëw natt ñu def retouches yi ñu waajal le 22 bi dem dëkk Pullman toj ko. ñan nekk sénégal xam na ñun waa burdo namuñu dara 33 cours de la man atelier bi le palais de la mort la tudd ñu koy géré ku bëgg ñëwal waaw ah, bu leen ragal dara daal fi moom doon namu sénégal kii nag moom mooy ras gis bi waxoon naa leen ko waaw ah, kii daal mooy ras gis moo toj nag mais ne am na bu mu tudd lalal basang sax mais xam ci kanam quoi ba ci kanam bañ agité <laughs>